waaw d'abord fi may njëkkee ci wax jooju mooy comme information bi ma ndaw si jox léegi <coughs> ci yaayu Pape euh, Cheikh Fall moom génn génn àdduna ñu ne woon génn na àdduna ma déggaat ne xaw ma ne nañ génnul àdduna mm-hmm. ñu ngi ñaan état du Sénégal bu fekkee vérifié nañ maanaam kii bi ba mu ba mu demee noonu ba ñu xam ne génnul àdduna nañ ko dimbale delloo si xelam parce que waajur dafa foor ci doom mm-hmm. euh, buñ ñu delloosiwul xelam lu ne mun na xew ci àddunaam xew ko ci fameem xew ko ci ay doomam benn ñaareel ba it am na ñoo xam ne lu tax ñuy bàyyi seen doom muy def lu leen neexut maanaam euh, ñàkk yenn koom-koom yi la ak yenn famille yi nga xam ne day am ñu am di seetaan ñi ñu war a dimbale bu ñu gisee lu bon wala dëj ci la dimbali nit loolu lañ koy moytu mm-hmm. euh, bi ci des bi nga ma laaj mooy maanaam lu jëm ci wàllu yar gi yar way jur moo ko war a njëkk a def ci doom njëkk sëriñ bi di ci jot mm-hmm. parce tey Euh, cheikh Amar Foutiou radiallahu anhu dañ ko benn taalim def na ko su ma amee am naa doom dama bëgg bàyyi ba mu mat ba mu am juróom-ñaari at ma indil la ko nga nga yar ko mu ne ko yar paase na na ko ba mu am juróom-ñaari at rek Cheikh Amar Foutiou ne ko yar paase na mu ne ah, mu ne ko waaw mu ne kon su ma amaatee doom buñ ko ngéntee ba pare rek ma indil la ko kon nga yaral ma ko mu ne ko yar paase na ci loola ba tey ñetteel bi mu ne ko kon kon cheikh bi fan la yar di commencé mu ne ko ba ngay tànni ndey liir bi foofu nga koy commencé. ba ngay takk ba ngay takki soxna fa nga koy commencé. ba ba ba mu kooka ëmbee liir bi it foofa it war nga koo éduquer. Mhm. pour di xool yi yaay di seetaan li muy wax ni muy doxalee ni muy nangam. parce que tey xale yi mujjee juddu nii ñoo la gën a xam TikTok yi. Mhm. ñoo la gën a xam li xew boo leen jox téléphone ñu dugal la fi ñu war a dugg yépp parce que noonu la seen seen yaay environnement boobu lañ nekkoon bi ñu leen di ëmb bu njëkk suñu maam yi dañ daan ëmb nit. ñu ñëw tiimale la kaamilu alxuraan boo ko mënul sax dañ daan ut benn ndonga mu toog sa côté di jàng alxuraan hmm. wala ñu la daan nettali ay histoire ñoo xam ne maanaam ay bañkat lañ woon pour lan bëgg liir bi bu màggee nekk bañkat di la nettali ay histoire suñu maam ñoo xam ne ay boromi dignité lañu woon bëgg liir bu màggee am dignité ci boppam. Hmm, hmm, hmm. yooyu moom léegi ay shooting la ñuy def. teg ko ci réseaux sociaux moo tax liir bi soo robu bu seere mu génn daal moo tax liir bi bu juddoo amaana boo amul saa sax boo ko joxee téléphone mu manipuler la ko. parce que xam nañ la xew ñoo la ko gën a xam. léegi nag bu fekkee maam yooyu dafa jeex société bi nga ne sëriñ bi nag am yaral. da ngay sonal sëriñ bi sëriñ bu sonal la sonal sa bopp bu parce que sëriñ bi lam ca war a de wax la ko la ko wax sa tur benn ñaar ñetteel bi mooy gis nga jikko mooy nit. Mm. yàlla ba muy tagg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tagg ko ci famille tagg ko ci rafet tagg ko ci lenn daf na ko wa innaka la ala xuluqin azim maanaam aji jekku ci jikko nga yaa gën ci jikko ci li ma bind léegi kon jikko boobu moom la jullit bi am gën la ko ñëpp moom la chrétien bi am gën la ko ñëpp mm. parce que tey li ma wax sànq rek njëgal buñ ko xaar ci kenn ku dul yàlla ñett yi moom ci yàlla la nekk nekkul ci kenn ruu doomu aadama ci yàlla la nekk bu nekkoon ci euh, bu nekkoon ci doomu aadama léegi tey mu mu faat ñëpp wërsëg ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo doomu aadama bu nekkoon ci loxo doomu aadama gën jege du la jox jàmbure lay joxe ji maanaam euh, njéggal ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo kenn comme ñett yi nag ci loxo yàlla la nekk nañ dellu ñu yaraat njaboot gi ci biir kër yi ba pare soog di leen génn ci biti